Bamba maa ngi lay fay di wax baatu onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñeenti waajur suñu ñetti ñi waajur yi fi jóge yàlla yaa yàlla yeesal yërmande ci ñoom suñu baay bu baax bi fi des yàlla na yàlla guddal fanam di sant sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xaadimu rasul yàlla ko fi yàlla yàggal te wér di sant sama xarit sama doomu ndey bàyyi Bamba ak rasul yàlla na ma ko yàlla fayal ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di sant les jumeaux di nuyu aw buuru këram di sant Sana kamara ak moo Ndiaye directeur sant ak Sana kamara mooy professeur bu mag bi ci états uni di sant moo Ndiaye directeur ak Adama taalibe alwalid Maane Ndiaye maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla samp samp ko di nuyu tamit ki nga xamante ni tey mooy Modou Khoule sama xarit sama doomu ndey di nuyu laay patafora waaw macha allah suñu xaarim ci nuyu bu am solo boobu te suñu waxtaan dañ koy dooree ak euh, ay shooting yoo xamante ni Siteu moo ko def ak Modou Lo shooting yi nag ku ko bëgg gis image yëpp plus de 15 images Siteu ak Modou Lo ñu simmeeku ku nekk takk ngemm da ngay dem seen affice point com nga gis image yëpp en intégralité plus de 15 image yoo xamante ne ak ay vidéo nga nga mën ko seetaan seen affiche point com nga jën sa code mën a gis euh, vidéo yi nga xamante ni mooy image suñu xaarim tey dañuy ñëw ci Siteu ak Modou Lo seen forme à un mois et demi presque du combat ñoo ñoo leen ñoo leen gisee ñoom ñaar dañu tàmbalee ci ki nga xam ne mooy Modou nga wax sax la dama lay wan photo image Lo nga wax noo gisee sa de forme. Euh, Bamba image yi dama ko gis. sàmmkatu mbott moo xam ba cay soox. sérieusement parler ku gis image yu Modou yi ku gis image yu Modou yi di xam ni. yokk na ci masse yokk na ci volume waaw ku gis image yu Modou yi di nga xam ni yokk na ci masse yokk na ci volume xam nga ndax Modou Lo bul fàtte ni ndaamala boo xamante ni njoolul gàttul mën nga ko jàppe noonu mën nga jàpp ni njoolul gàttul mais loxo bi am na tuuti relance xam nga waaw loxo yi tamit gàttul xam nga ndax di nga gis tey ndaama yoo xamante ni bindu golo la ñuy yor maanaam dañuy bindu golo boo ko déggee mooy maanaam ce maanaam cër yi dañuy ëpp dañuy ëpp dañuy ëpp ndigg li dañuy ëpp cër yi dañuy ëpp yaram wi waaw cë ma xam nga kon di nga xam ne tey ku xool Modou Lo mi di nga xam ne liggéey na xam nga soo jugee fii tamit nga xool ma xam ni par rapport ci combat yi passé ak bii ak Boy Niang ak Ama Baldé da ngay xam ni tuuti yokk na ci côté bras yi yokk na ci côté tuuti ci jambe bi ak ci côté épaule yeeg yooyu yëpp xam nga mais soo ñëwee tey après nga jóge foofu waaw xam nga da xam ni franchement liggéey na foofu liggéey na xam nga mais toujours li tax liggéeyam toujours ma boo déggee ndaama ak njool ndaama liggéeyam toujours mooy gën a gaaw a feeñ njool mi xam nga tey waaw muscle court la quoi ndax njool ndaama li mu mën a liggéey ci ci deux mois njool bu doon moom ci 4 mois la koy liggéey wala 3 mois ndax relance baa tax avant miskil bi chargé day jël temps ndax daama miskil bi day xaw a gàtt te lu gàtt pour nga chargé ko day yomb ci xam-xam la ñuy waxee nag moo tax man la kon combat bi euh, combat bi dàq ci année bi ci komba yi bii ci la bokk ndax muy muy muy muy muy muy Modou muy tarkindaa bi Siteu kenn foo wuyu ci bés bii. waaw mais lu tax jël Boy Niang euh, indi poids bu indi poids de forme bu bu bu gën a moyen bii nii ak Ama Baldé day jël Siteu ñu gis mu yokk poids bi. waaw c'est que adversaire de taille day am adversaire de taille day am ku ci nekk da am sa staff sa staff am lu ñu lay digal am lu ñu lay wax ci adversaire bi nga am ndax adversaire yi ku ci nekk bokkul ak sa morom ni muy bëree xam nga ndax làmb du benn fan du ñaari fan te làmb bopp la. xaw ma ndax bamba xaw ma li ma lay xaw ma barki koro ma demee kër bàyyi bamba ak rasuul rek maa ngi ciy waxtaan ak moom làmb bopp moo koy def xam nga li tax man la làmb bopp moo koy def ca bés ba lay feeñ xam nga sa waaye nag ah yokk na poids am comme yokk na poids am nag xëy na mook e-, e-, safam ak encadrement am ñoo xam li tax ñu yokk mu yokk poids am xëy na adversaire bi mu am xam na ne adversaire bi bu dee ci mentalité bu dee ci mbooloo bu dee ci bëre bu dee ci ci ci fit bu dee ci relance am na ko kon liñ ko mën a yokkal mooy yokk tuuti sa yow sa sa sa sa performance ci ci ci côté entraînement xam nga yokk sa performance ci côté doole yokk sa performance ci côté physique ak endurance te loolu mooy làmb. léegi mbooloo bi nga gis ni tey euh, état de forme bi mu yor nii bu doon dana koy conseil la la ci war a dindi ak lu mu war a yokk lu mu war a wàññi. non loolu xam nga lu tax damay loolu bamba man awma ci lu ma ko ci mën a wax pour mu yokk ko wala pour mu wàññi ndax jegewuma estafam te bokkuma ci estafam loolu moom damay mal placé pour wax ko ci xam nga li tax li ma ci li ma ci mën a li ma ci mën a wax nag mooy ci beneen camp bi ndax boo boo ma laajee ci benn camp bi tamit ma ci développé da may laajaat ci beneen camp bi ma mën ci développé bu ko defee affaire bi équilibré xam nga. non dañu njëkkee ci Modou Lo après dem waaw nañ ko nañ dugg ci Siteu dama bëggoon njëkkee ci Modou Lo ba pare ñu ñëwaat ci Siteu léegi nañ ñu nga wax noo gisee Siteu. waaw Siteu mi ma gis ak ak Siteu ma ma doon gis. wax dëgg yàlla changement am na ci bu baax sérieusement parler te li may wax nii képp ku ko xool jàngaat ko xool côté tànki zambi cité yi car macha allah di nga xam ne cité mi yokk na cité tànk yu mel ni c'est la première fois ma doog a gis cité tànkam génn nii 100 pour cent kon nga xam ni nga xoolaat encore ci côté avant bras bi jëm ci bras bi. jëm ba ci triceps bi kon da ngay xam ni Siteu liggéey na ndax njool mu mel ni Siteu liggéey nii Bamba ah dañ na ay coono bés bi nag moo ko waral dañuy analyser nag bi ne ni tey dañuy décortiquer ku ne xam na ni man tarki ndaa laa far mais dañuy décortiquer pour ci xam-xam la ñuy waxee fi mu ne nii xam nga ndax li ci des nag su amee Siteu su amee endurance am taxawaay bi ci war ba pare muscle am fees na mu war a feese ba pare mu entraîné miskilam mu mobile mën a moom boppam ci côté gauche bi xam nga mu mën a doon genre piston nga xam ne day dal dellu siwaat wala lu waaj yëngatu mu mën a dóor dellu siwaat ah ñi ngi gis nag làmb joo xamante ni nag njëriñam lay doon bu boobaa ndax ku xool ñaari et ñaari mbër yii état bi ñu sumb nii ah na loo préparé li tax nga liggéey état bi état boo ko liggéeyee rek ba am ko dëgg doo ñëw pour taxaw doo ñëw pour défendre te li gën a garaaw ñaari mbër yëpp duñ défensif ñaari mbër yëpp ay attaquant lañ ñaari mbër yëpp ay attaquant kon li tax ñu chargé leen sëf leen benn benn benn volume bi ak benn muscle lourd bi kon am na loo xamante ni mi ngi bëgg a xeeñ ci combat bi mais combat bii daal euh, bamba ndax yaakaar naa ne ci kattanu yàlla ci man li ma jàpp ci sama gis-gis ah combat bi mooy dàq ci année bi. mooy combat bu ñëpp dul fàtte. mais ñu war a nii nii nag loolu loo leen di wax. ah entraînement bi jeexagul. entraînement bi pareegul ci pareegul de pareegul ndax mois de octobre il faut mu jeex même beneen mois bi ñuy dugg le 20 la. jàpp teg na ay fan le 20 yi teg na ay fan. 24 waaw le 24. kon amaan nga foofu quinze jours ba jàpp 16 jours pour renforcer waat xam nga renforcer waat boobu nag mën na doon endurance. mën na doon carburant xam nga lépp ngi ci mën na doon tamit dóor saak mën na doon tamit gaawal loxo bi mën na doon tamit loo xamante ni tey dalay wóor ni pour yow noo calculer sa adversaire ba jàkkaarlook moom bu arbitre fër nga xam ne bu bu yëngatu bu karaw bopp yëngatoo sax sa loxo ñëw kon ma kon damay gis ni combat bi ci côté analyse la ñuy waxee tey ak xam-xam ku ci nekk ku ci nekk ci ñoom ñaari mbër yi hmm? nii ñu abordé combat bi dalay wóor ni te am na mérite Modou Lo am na mérite booy boole booleel ñaar ñu am ginnaaw. mais Modou xalaat nga pois bi mu yor nii mu bëree ko indi ko sur combat ah mais bien sûr Modou Lo li tax Modou Lo ku ne xam ne li tax Modou Lo di yokk poids su musul musul bëree combat yokk poids nii kon c'est parce que am na adversaire adversaire de yenn adversaire de yi soo ko amee il fook que il nga xam ne yow mii da ngaa am bés boo xamante ni bés la boo xamante ni bés la ci bés te bés ci bés yi boo ko amee ku ko xam da ngaa war a noppalu xam nga site tamit am bés boo xamante ni mu ngi doog a bëri combat royal kon combat royal boobu lu mu ci daj ci coono doyul lu mu ci daj ci ci yaramam pour pour mën ko charger pour mën a bis ba mu am bëggal tarkindaay bëggal ay supporteurs yu jàmm gënam ak mbooloom fi ba jonwaar ak ñëpp fépp fu il ne li ko ci may sens rek mooy mu rey boppam xam ni bés bi moom la doon souhaité ci carrière am yàlla may na ko ko nag li mu ci mën nag mooy mi ngi dajeeg mbër moo xamante ni tamit mbër la moo xamante ni bu mën bés la moom it mu mën bés yàlla boole leen kon ay étincelle yu takk jër moo fa war a am Bamba man Xaadim la wax loolu waaw léegi moom bu yokkee poids nii si jour combat bu ñëwee indi pois bi nii ban genre euh, xeetu combat la la bëgg a indi cité la fekk mu yokk ko euh, poids bi nii non ci ci ñun ñi nga xamante ni ñun ay ay ay ay ay farandoo cité lañ ah bi mu indi ça arrange cité ci benn côté waaw xam nga nag Bamba yaa ngi may cuq nag ndax jëm jëm guerre di wax say arm tamit ñoom mën nga leen ko wax ñu ñu dem ñu dem rectifié waat quoi waaw mais Modou Lo su yokkee ci yaram lu bokkuloon ci yaram bi c'est parce que am na lu ko jaaxal pour man pour man am na lu muy dute te li muy dute noonu nag ñun moom la dul dute ñun waaw wax la dégg-dégg la laaj moom su amee lu muy dute ba yokkaat poids am yokkaat yaramam c'est parce que am na lu muy dute. ah est-ce que bu jàppee système mu bañ a rëcc. déet est-ce que mën na arbitre ne fër rek mu daw jàpp ko ndax ku xool système yi tànkam yi mais franchement bu ñu waxalee yàlla si taxawaay bii car macha allah sama xaalis xii na di nga xam ne système yi wax dëgg yàlla dikk na suñ ko mottalee renforcement te ruq yi chargé ko fi mu ne nii dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa def genre. comme lu taxaw nii rek ñu war a ñëw mottali ko su ne su ko mottalee ruq yi ruq yi yëpp mu mottaliwaat ko ba jour ba endurance bi ñëw résistance bi ñëw xam-xam bi ñëw si te ñëw ci boppam oh, doom dina neex ndeyam ah. ci ku dégg séeréer ah, mbonaata xam la ca dégg ba moom mi naan ba ca bag ba hmm. mbonaan moo xam la ca dégg ba moom mi naan ba ca Bamba Bamba maa ngi wax ñu bëri nag ñoom ci seen bopp waa parcelles yi di bind naan ba nga indee diw ba nga indee diw mais xamuñu sax fi may waxee background bi may waxee ñoom xamuñu ko waaye le cinq lañ koy xam ñoom lañuy xam fi grand Khadim Ndiaye di waxee le king gis nga Bamba combat bii combat bii. xareb rey la rek reye koy jeexal boo dajee koo xamante ni bukki timis loo ko dàq-dàq lu mu lëndëm day ñëw day ñëwaat ah utal say torsu rek ak sa yar bu baax taxaw di ko xar nga xam ne bu ne nii rek yar ya daal ndëll ndëll ji mel ni taw mooy Modou Lo mii waaw Modou léegi Siteu dugg na dugg na parcelle mhm. daan Papa Sow ak Zos di bëreeg Modou te Modou Lo xam na loolu ci combat bi est-ce que tey nga foog na combat bi dina dina yomb gi Siteu. Bamba daanee Modou Lo mooy moo daan daan jeexal na parcelle yëpp. pourtant nag Bamba da ngaa xamul rek dama bu yokkee poids bi am na lu tax. Ah, c'est parce que charge bi nekk ci boppam la. Modou Lo mu Papa ñooy bokk di entraîner ñooy bokk di reer ñooy bokk di tëdd rek la tàggale ah, te gis nga Papa Sow jël bu rëy bi ko Siteu daan dañoo doo xeex Papa Sow doo bëtt ko ne tànk ba coppet Siteu def deux pas dew tël ko bu sulu ko ñëpp bi jël bu mel noonu c'est la première fois ñu bari gis ko nga gis tànk Papa Sow yi ca kaw tey bu fekkoon ba par la Papa saw day dagg fii lii tànk yi mooy dagg fii lii waaw kon nga xam ni kon Modou loo gis loolu Modou loo lu mën a ñëw pour géem a ñëw pour humilier Siteu xam nga pour xeex ak moom sax pour bagaar moom sax pour géem ko wàcce sax da koy def combat bi lu ne sóor na lu ne bàyyi naa ko ci xel xanaa xamoon ñoom ñoom ñoom seen bopp sax am na nu muy demee sax dóor mu daanu sax la ñuy la ñuy gën ñoom ñoom waa parcel ma ma xam ngeen dugg naa seen 18 ku li ajj ku li ajjee ko sut waaw yàlla ñu yàlla lafal cat nag yàlla lafal ñu cat waaye tarkindaa bi la nga war a nekk rek la ma la wax démb la waxante koro bi ñu jokkoo téléphone fiis am na loo ma wax am na lu ma la wax ak Abu Ndiasse yéen a ngi taxaw jàpp leen loolu rek ba juge si billahi combat bii yàlla ñu ci yàlla lafal cat du ma ne Modou Lo du champion de su ma ko waxee naa fekk laa su ma ko waxee damaa soxla hypocrite laa Modou Lo c'est un grand champion dañ waxante dëgg loo ko bañ la guerrier moo ko indil fii tey mu téye roi bi ba jour bi ba ba tey tey tey tey di bëri troisième gosse yi gën a tës ci làmb ji kon c'est parce que Modou am na mérite il est grand champion waaye nag mu ngi daje xale boo xamante ni tamit xale bu ndaw la bi muy doog a dugg ci làmb ñépp dañu woon si tamit na dem seeti beneen métier na dem ci sareet si na dem uti apprenti oto tey Siteu di góorgóorlu bay ko bëre combat royal kon Siteu am na mérite loo ko bañ bañ di nga xam ne Siteu bi am na mérite waaw a ñaaja andig rek andigoo ndig waaw day dox rek waaw day dox rek waaw day dox rek waaw day dox Siteu sax boo ko oowee amatul droit tëpp ba combat bi ñëw soo ne ko Siteu kaay jël lii tegal ko fii 10 milliards ne ko kaay Siteu amatul droit dëpp day continuer continuer rek tout droit am xanaa kenn nay dëpp jëlal ko ko mais Siteu continuer ba comba bi jeex day continuer loolu nag waa parcelle laa leen bàyyi ñu ñu ñu cax bi ma leen cax ne Siteu day continuer Siteu tey bu duggee ci oto li liñ continuer amatul droit jàdd fenn liñ continuer la dugg tant que combat fii ba le 24 Siteu liñ continuer la ne tant que jëlul lim soxla rek du arrière. waaw ñu di wax ay wax euh, deuxième avance ak yooyu jëruñu si suñu. xam nga Siteu dafa am ci lu mu ne. deuxième avance dafa xew. Mm-hmm. xam nga deuxième avance ku mu neex jël ko. Mm-hmm. ndax mbër yaa ngi jël ay deuxième avance ak troisième avance. Mm-hmm. mais ñun dañoo yor loo xamante ni. comme na ko mag si waxee. Siteu lim indi contre de Guiers. bu ci amee lu mu ci reprendre am lu mu ci tëdd ñëwaat coppite teg doole ko ci ne ko ci pëy day saxaar xeeñ lu neex hmm. ah Modou Lo gis nga ko Modou Lo fu ne ma ngi fay daw di wut yaram di wut poids Modou Lo nii mu toll nii musu ko toll li est que dina ko arrangé fexeel ba sëf sa yaram yi loo xamante dina arrangé Modou Lo <laughs> jàmbaar nga <laughs> champion nga doo fooy bés waaye booy bii du fooy bés de booy bi ñaanu la dara booy Siteu ñaanu la dara te loo ko may mu jël yóbbu jàmm gën tarkindaa yi barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke man xaadim maa la wax lii Bamba combat bii nag Bamba Siteu tamit même chose ñoom ñëpp a yem Siteu tamit dilul dara bu fi nekk nit ñi di polémique di soxor di iñaan kii entrainement la nekk ma nga ca booru géej ga di entraîné def li mu war a def te gis nga ma wax la leen de Bamba Bamba gaynde gaynde gaynde moo koy rey Siteu gaynde moo koy rey waaw loolu nag soo ko waxee ñu ñi xam am dégg dégg dégg rek ñooy xam fa may waxee nag mm-hmm. suñ ne gaynde ga moroomu gaynde ma koy rey mm-hmm. xam nga ñaari gaynde mosoo leen gis li ñuy xeex ci àll bariw voilà loolu su ma ko waxee nag ñi xam dégg dégg ak ñi xam taarix mm-hmm. ñooy xam fa may waxee ndax samay wax daanaka jalu muuf sa booy jeqi di gis waxuma ay nii pour bëgg pour bëgg buzz mais dama xam ni kombaa bi am na fu mu toll ci ñun. léegi bu arbitre sifflé taxaw Modou taxaw. arbitre arbitre bi di sifflé ma jàngatee taxawaayu Siteu ak taxawaayu Modou Lo ci biir géew. xam nga Siteu am nu muy taxawee ci combat bi ak contre Modou Lo Siteu nam daan taxawee ak bii du bokk Siteu nam daan taxawee ci combat yi ak bii du bokk. Siteu day taxaw euh, écarté tànk yi. ak loxo yi Modou Lo taxaw bu simple lay taxaw du écarté tànk yi waaw. waaw bu bu arbitre déroulé mu mu xaw a écarté tànk yi xam nga te Modou Lo heure heure bu tegee gauche am heure bu la mébee nii droite bi rek lay bàyyi mu dem droite bi rek lay indi kon kooku kooku pour nga pour droite indi léeg sax droite bi mooy mu indi mu indi gauche bi mais kooku yomb naa yomb naa xeexal <laughs> Bamba kooku yomb naa xeexal sa sang froid rek ngay àndal non stress. Sangfroid da ngay xeexal ba ñu yenu bés bi ne ko jàkk ci bët xool ko dans la jeu dans la jeu mu xool la nga xool ko affaire de góor la ah. yaram benn la foo dóor mu metti affaire de góor la ah. su ma la kaataa da nga koy yëg soo ma kaataa dama ko yëg a ah. kon nañ waxante dëgg kon affaire de góor la te si ku ne xam ne ni kenn musu ko gis muy taw di jéggi saako di daw nangam c'est ton vainqueur waaw xam nga kon si te kenn musu koo gis ci lu ñàkk fayda kon combat bi nag bu dee bay bëre combat royal am na beneen taxawaay ak beneen gis-gis boo xamante ni Modou Lo parce que ñi ngi naan Modou Lo ay ri kenn mësu ko gis mu def lii koro koro c'est un grand champion nag façon jël bu ne daal na ko fi champion la. mais dernier combat loolu lay bëri. waaw mais man dama gis ni Modou Lo man toujours samay analyse dama leen wax Modou Lo ne c'est un grand champion. champion la boo xamante ni Modou tey tey ja Modou Lo Modou Lo day mbër moo xamante ni booy bëree moom doo caaxaan Modou amul booy bëri moom doo caaxaan. te heure booy bëree moom tamit aussi loo doon loo loo wóolu sa bopp sa bopp ak lu ñu la wóolu wóolu sa xel dina am ci lu mu dem ndax da ngay bëri vainqueur te nag tey coupe du monde la ñuy bëri ñun daanaka bu mën naa ni tey coupe du monde la ñuy jël. mais bëre bëre gréco-romaine bi nga wax noonu dañu combat loolu la indi comme bëre di jàpp kenn kon jàpp ngeen mu di xëcc di combat bi yàgg loolu defatul loolu. d'accord defatul loolu mais c'est parce que xëy na combat baa toll foofu wala combat baa eggul fenn fi. moo tax mu demee noonu Bamba il faut ñuy xool combat yi ni ko Modou Lo di abordé bàyyiwuñ ci xel nag mais ni Modou Lo di abordé ñaari combat yi c'est pas la même chose bokkul combat Ama Baldé ak combat booy Niang ni mu ko bëree ñu bëri bàyyiwuñ ci xel mais fas bëri na bëri na bëri la mais bokk bëri yi bokkul ba tey bëri yi bokkul te ku weddi tegaatal nga xool tegaatal bële nga xool. loolu la mooy différence bi ñoom. non différence bi Bamba loolu du ma ko mën a wax. ndax bés bi damaa ñor du ma ko mën a wax mais tamit naa la wax nii bëri daal bokkul waaw. am na koo xamante moom dañ koo gëdd mu arrière ñu gëddaat ko mu arrière xam nga di ko waa ji gëddaat xeex xeexam moom mu taxaw riposte dóor ko droite wa droite bi daal mu attaqué ji waa ji sëgg di ko dóor sëgg di ko dóor ba doo ba jël ko sa waaye xam ni foofu baaxatul mënatul am pexe mu lal mbot ba mu lalee mbot nag mbot mi baaxul mu la suruxal ko ca la ko war ko dóor kenn benn benn loxo la doon xeexee ak benn loxo rek la doon xeex ak Modou Lo te il champion bu toll ni Modou Lo ngay xeex moom benn loxo wóorul kon am na looy sóor ci moom ba ba ba ba ba rëpp jël tànk Modou mënatoo jóg ca la la sañaxal nga daanu kon ñaari combat yi ni mu ko bëree baaxul kon ñun xam nañ Modou xam nga lu ñu gàtt gàtt ñun duñu ay naxa-naxa xam nga sàmmkatu boot moo xam ba cay soox ñun suñu kar yi yëpp ci làmb lañ ko def xam te combat bi li tax mu neex ci ñun dañoo bëriwul cuune soo fexee ba am ci moom ndam am nga am nga mérite Modou ku fexe ba am ci moom ndam jël ci moom roi am nga mérite ndax daanoo daanoo cuune. dañu wax léegi suñu xaarim fa la ñuy jeexalee dañu question bi ci Siteu ak Modou Lo est-ce que tey euh, Modou Lo explosivité bi nekk ci moom bu xasee ba déclenché loolu tey pour Siteu euh, mën a contrer loolu noonu ci fan la mën a jaar pour mën a calmer Modou Lo. loolu du waxu média nag Bamba pour Modou Lo arbitre bi rek mu déclenché Modou Lo bu déclenché day mel ni jazel. xam nga diesel bu xasee tàng rek c'est fini bu déclenché rek amatul are ci biir déclencheur boobu nag ah, ngay dagg déclencheur gi bu machine machine diesel soo ko poussé ba mu tàkk boo xamante ni courant la am nga nga nga bàyyi ko ba mu déclenché nga dagg courant bi ndax déclenchement bi dootu na am ah. looloo nar a dal Modou Lo nag ci combat bi dañ koy bàyyi ba mu déclenché ñu dagg courant bi déclencheur gi lañ naan tëpp. waaw te li koy arrêté nag ay loxo lay doon combat bu ne def am nu ñu koy abordé Bamba Bamba il faut nit ñi xam ni il faut que nit ñi bàyyi xam-xam xam-xam dafa war a feeñ ci lépp looy def lépp looy def te xamoo ci amoo ci xam-xam demal toogi man ci xam-xam rek laay waxe ak pied sur pied ñaari tànk yi dañuy jàkkaarloo jàkkaarloo wuñ de ñaari tànk yi dañuy féewaloo nii lay demee kon xeex bi dafa war a neex foofu ñoom ñaar waaw day jigante kon xeex baa am day day kon kon nga xam ni xeex ba day neex garde doon ba ak fausse garde la kon nga xam ni làmb ji lépp a ngi ci te ñoom ñaari mbër yëpp mën nañ loolu kon làmb ji kii njool la kii ndaama kii li koy arrangé mooy mu jege njool mi njool mi li koy arrangé mooy mu xaw a sori ndaamali ndax bu bu dee jëy loxoom mën a dal kon yàlla nañu yàlla defal jàmm merci nuyu bamba bàyyi bamba ak rasul du nuyu sana camara bàyyi bamba ak rasul xam nga kooku bamba dama koy ñaanal yàlla fu ma toll Bamba kooku sama frère la sama xol a ko bëgg mu nit koo xamante ni jàmbaari fëkk tëdd du ñuy Sana Camara bi nga xamante ni mooy professeur bu mag bi jàngale nekk ci États-Unis di nuyu moo Ndiaye directeur di nuyu Modou Khoule ah di nuyu tamit Adama taalibi Alwalid maanaam Ndiaye bi merci